ñi ñuy seetaan dañuy déglu fii ci Star TV ñu ngi leen di nuyooti di leen gërëm ci topp gi dellu siwaat fii ci seen programme bi ñu ooy Arrisala ba tey cheikh bi mu ngi continuer li ñu wax li nga xam ne moo gën a yey ci képp koo xam ne dafay laayee biir lu mu wala lu war a wax wala koo xam ne dafa bëgg a am yool ci yàlla subhaanahu wa lañ lay jëf mu ne loolu mooy mu eggale yiw ci xol yi nga xamne ñoy xale yi ndaw yi mu saxal ko fatam nga xamne dina leen yok gëm yàlla jox leen xam-xam bok na ci lolu watan bihum ala maalimi diyana wa hudud shariati mu xamal leen yi nga xamne ñoy mandar gay diine bu fuñ ko gis xamne li diine la mu jox leen itam mandar ga tektali daytali diine fuñ ko gis xamne diine fi la yem li li yuraadu alayha ngir ñu tàggatu ca loola ba nga xam ne luy xam-xam ci diine luy màndargaam diine ñu gis ko jàpp ca lépp loo xam ne day tali yàlla itam ñu gis ko yem fa duñ ko jéggi wa ma alayhim an taataqidahu min addiini qulubuhum ñu jàngal leen tam li nga xam ne moo war pour seen euh, fas-fas bu wér ci diine dafa war ci ñoom ñu fas ko loolu itam ñu jàngal ko xale yi ba nga xam ne dinañ ko gëm takk ko ba mu dëgër junjoon nañ ca dajee ba leen ne xol bi nga xam ne euh, mu ngi des ci ni ko yàlla bindee ci fattara te fattara mooy lu baax li nga xam ne moom la ko yàlla bindee xol boobu suñ góorgóorloo ba jiital ci lu baax ci jàngale xamal ko mandargaay diine xamal ko daytali yàlla yi fi nga xamne fi la yem bu ko jéggi saxal ko ci bir xolam wax ko lu mu wara fas bam fas ko fa bu boba da fay neex lol pour eggali ko ndax yiw mooy cosaan la nga feccali ko ak leneen lo xamne yiw la tam ndab loolu iw rek mo cey nek loolu tax cheikh bi xeur lol pour ndaw yi ñu jàngal leen mu wax ne daal kuy liggéey ci diine la gën a yay mooy ndaw yi nga nga jàngal boo leen jàngalee li nga xam ne war nañ koo fas bañ fas ko ba mu dëgër itam du fas rek bàyyi waaye dañ koy fas ñu jëfee ko wa taamala bihi jawaarixuhum su ko defee seeni i cër di ko jëfee nag ndax itam euh, li nekk ci biir war naa feeñ ci biti itam ci gëm yàlla gi nga xam ne moom la fas ci xol bi ci ragal yàlla gi fas ci xol bi diine ju set jëm fas ci xolam fas fas yim yu seet yim fas ci xolam yëpp jëf yi ñoo ko war a représenté di di la nekk ca biir jëf yi di ko génnee leen lu nekk mandax ak diine ba lu def lu ne nga xam ne lii diine la wax dëgg yàlla bu waxee nga xam ne lii waxi diine la ca fam bàyyeekoo ca biir diine fa euh, lu aju ci fas-fas bu koy jëf nga xam ne kii li muy jëf nii la ko fas-fas sant li muy jëf nii ci biti mu jëfee ko nii euh, loolu yëpp daf koy dimbale euh, cheikh bi ne bokk na ci li nga xam ne solo nañ ko ci ñi netali ci jàngal xale ne da fay merum yàlla mu ne fa innahu li fi nekk mbir day ruwiya anna taalima sigaari li kitaabillah yutfiu gadab allah solo nañ ne jàngal xale téere yàlla bi te moy alquranul karim jàngal ko gune gu ndaw wo xamne xolam yàqoogul neena na day fay merum yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu ngi junj xadis yu bari ñëw na ci ngëneeli jàng alquran ak di ko jàngale rawatina ndaw yi ndaw doon ndab loo xam ne ndab lu laab la nga jël alquran sotti ko ci ndab lu laab loola le wax dëgg la yàlla laab gu uyu laab rek lay doon muy doon laab gu jokkaloo euh, ndaw mi nga xam ne nag mun na am sax ci aada ñu yàq jàpp ne ndaw bu yàqu di am moo war a yàqu kenn warta yàqu sax ndax ndaw judduwut ci yàqu te yàlla tabaxut ko ci yàqu yàlla lu tabax yëpp lu baax la waaye nag ci aada dañ foog ne yàqu moom ndaw sax bu waree am wala buy amit ndaw a war a yàqu wala nanga waaye yàqu moom warta am fenn waaye nag ndaw loolu nga xam ne yiw moo nekk ci xolam yiw moo fa jiitu ñu feesal koog yiw rawatina téere yàlla bi subhaanahu wa taala mu ne solo nañ ne ci hadis yi nga xam ne solo nañ ko ci mu doon hadis yu bari yoo xam ne mu ngi wax ci ngëneeli jàng alquran ak jàngale ko mu ne wax nañ ne jàngal xale alquran loola le dafay fay meru merum yàlla ndaxam am bokk na ci li ñuy nettali itam du hadis waaye nee nañ euh, jàngale ci ndaw wala xale lum jàng ci ndaw yaayam suñ ko mënee misaal nam fay saxee du far mu ngi mel ni do doj wuñu rëdd wala mu ngi mel ni rëdd ci doj jàngal xale mu ngi melni reud ci doj wala nga ni xale buñ jàngal mu ngi melni doj buñ reud reud wa nek ci doj wa ngalaw du ko far ndem doj wa nga fa ngalaw du ko far dara ko genné motax mu ne solo nañ itam adé ko nettali ne wa anna ash-shay fi as-sighari kan naqshi fi al-hajar jàngale dara ci waxtu ndaw lola mu ngi melni di rëdd ci kaw doj li cheikh bi bëgg a wax yëpp moy gëna fédali ne ndaw dal place la bo xamné war nañ ko fonk war nañ ko jox gëddam war nañ ko topato war nañ ko bàyyi xel jàngal ko lañ koy jàngal la ci am gëna am solo moy tire yàlla bi jàngal ko tam ci wàlli fas fasam lu wara fas waxoon na ci daje bale ne su fasé lu bax ñu xamal ko gay diine mu xam daytali yàlla yi jàng alquran kooku day neex a jubbanti ndax bu ëllëgee doo soxlaa génnee dara ci la ci xolam waaye bu fekkee nag yii yëpp dafa manqué ba leneen dugg fa bu ëllëgee ñaari liggéey ngay am di nga am liggéeyub génnee te loolu lu jafe lool la néew na koo xam ne eh, lu mel noonu tabbi na ca moom ba pare mu rëcc ca mu génn ca eh, di nga soxlaa génnee loolu liggéey bu métti la. nga soxla dugal itam loolu itam liggéey bu métti la motax cheikh bi ne nañ góorgóorlu ci xale yi te mo gëna ay fuñ wara gor war a pour jàngal len lu mel non la euh mo ne dina uyu ki koy laajte tam waxna ko ne wa qad masaltu laka min dalika yantafi'una in sha allah bi hifdhihi ma ngi lay waxal ne li nga ma laaj ni tontu na la ci te misal na la ci ay misal defal lako yo xamne bu sobe yàlla Euh, xale yi dinañ ci jëriñu euh, ñi koy jàng dinañ ci jëriñu suñ ko jàng ñu wëttu ko def ko euh, mokkal ko loola la dina leen jëriñ wa yashrufuuna bi ilmihi danañ doone itam ñu tedd ci xam nga ñuy xam yi nga xam ne moom laa leen tënkal buñ ko xamee danañ ca amee tedd nga itam ndax xam-xam moom teraanga rek lay jural boroomam ndax am mbaax yitam teraanga rek lay jural boroomam jubitam teranga rek lay jural boromam moo tax cheikh bi ne ko yi nga xamne defaral la ko lan na la ko uyu na la ci defal na len ko defin wo xamne danañ ca danañ ca jëriñu buñ ko mokale diko jëfé jëfee danañ ca tedde itam wa yas'aduna bi itiqaadihi wal amal bihi danañ kontaanee itam ci gëm gi nga xamne wala fas giñ ko fas ndax fas lu bax day indil xol fiix wa xoli boromam day fiix du am jaxare du am khat khat du am jaxle du am dara lu koy gën ci bir xolam lo tax mu ne ko yasaaduna bi i'tiqadihi fas giñuy fas lima len di wax ci ni lolu daf len di jox fiix wa daf len di jox ak fiix jox len ak ak mucc jox len ak teranga jox len contente mune ne waqad jaa an yu'maru bi salaati li sabi sinin ñëw na ci xadis boo xam ne borom téere yi solo xadis yu wér solo nañ ko mu doon xadis boo xam ne xam nañ ko lool ci bunti jàngale di ko far faral di jàng di ko firi di ci ñaaxee jàngkat yi waaye di ci ñaaxee borom njaboot itam di leen ci ñaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadisam bu wér mu wax ne Euh, nañ digal suñ doom yi ñuy julli kañ suñ amee juróom-ñaari at an yumaru bi salaati li sabi sinin buñ amee juróom-ñaari at bu xale juddoo ba am juróom-ñaari at nañ koy digal muy julli euh, ci guddali borom xam-xam yi ak di gëstu xam-xam ak di jëfee comme li nga xam ne moo nekk ci ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa danañ taxaw fi yonent bi wax ñu ne sallallahu alayhi wasallam sallam nañ digal ndaw yi suñ doom yi buñ amé juroom ñaar yaat nañ leen digal ñu julli mu dess bala ñu am juróom-ñaari at bala ñu am juróom-ñaari at borom xam-xam itam seet nañ fa ndax fofu dana jaadu wax ko ne jógal julli wala ndax du jaadu nga wax ko jógal julli boo ko waxee ne jógal julli ci ban eh, dalil nga wéeru ba wax ko ne jógal julli boo ko waxut ne mu julli itam ci loo wéeru ba waxuloo ko ne mu julli waaye loolu nag dañ ciy romb nii rek daanaka eh, eh, wax ji leer na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ leen digal ñuy julli buñ amee juróom-ñaari at ndax xel nangu na ne la jiitu juróom-ñaari at lu mel ni julli kooka du ko rafetal rafetal gi nga xam ne lislaam moom na ko buggee balaa mu am juróom-ñaari at ni islaam soxlaa muy julli wala ni julli war a mel euh, mun na am du ko mun a taxawee la julli laaj yëpp du ko ko mun a jox bon xel nangu na ne looloo tax diine wax ne wala yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ne nañ ko digal julli su amee juróom-ñaari at waaye bu amee juróom-ñaari at nag itam gis nañ ne xale bo am juróom-ñaari at am na yu bari yu mënal boppam am na tam lum xam am na tam nu mun a mel bu booba xel dina nangu itam ne foofa lañ ko war a digalee mu julli wala muy def fulla ndax am bu ko xel nangu toon it comme charia xas yonent bi sallallahu alayhi xas na ko wax charia taxawal ko waaw bu boobaa moom bu ko xel nangu ti dañ koy def ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu santaane moom def rek mu ne nañ leen digal suy amee juróom-ñaar bon bu amagul juróom-ñaar ku ko digalut fa mu wéeru mooy ne yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam su amee juróom-ñaar la wax te comme amul juróom-ñaar daf ci noppi loolu tax duñ ko sant kane nañ ko digal su amee juróom-ñaar itam def ne su fekkee ne euh, xëy na fa muy wéeru moom amut nas amut amut wax joo xam ne dafa jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag su gisee ne kooka mu ngi tënku ci sa ndigal yow loola dana tax mu gën a mun a tàggatu moom ci wàllu tàggatu mooy tax dana kooka dana tàggatu dana gis ne loolu dana tàggat xale bi dëgg la amul juróom-ñaari at sax waaye dina ko tàggat ci euh, julli nga naan ko ñu ngi dem ci jàkka ji wala ñu ngi julli si bul def nangam bul def nangam bul def nangam loolu dana ko dimbale ba nga xam ne bu amee juróom-ñaari at ah, pour digal ko mu julli itam dana gën a yomb kon ñaari yëpp ah, doomi jullit noonu lay def am na julli balaa ñu am juróom-ñaari at boo ko seetloo sax xale yi ci sa biir kër buñ gisee ngay julli di naafile ci kër gi wala ngay julli ci kër gi di nga gis boo taxawee ñu ñëw julli wala bu ñëwee ci place julli kaay sijaada wala basang la wala der bu ñuy jullee la nga gis ñuy allahu akbar ak yooyu di di di la roy lu ci mën a nekk cheikh bi mu ne xale dañ yar te loolu am ci dalil ndax yonente bi sallallahu alayhi Wasallam wax na euh, nañ ko digal mu julli su amee juróom-ñaari at wa yudrabu alayha li ashrin xale yooyu nag nañ leen dóor ngir bañ a julli waaw nañ leen dóor ngir bañ julli buñ fukki at euh, ki am jurum ñaari at nga ko digal kaa ñu dem julli jógal julli kaa ñu dem julli jogal julli kaa ñu dem julli julli ba am fukki at wax dëgg yàlla su dee lu ñuy tàmm la war na koo tàmm bu dee lu ñuy xam waxtum la war naa xam waxtu wi bu dee lu ñuy fonk la war na koo fonk bu boobaa nag bu ko bañee def waxtu julli jot julliwut loolu la wax ne wa yudrabu alayha li ashrin danañ leen ci dóor ngir suñ amee fukki at te defuñ ko ndax juróom ñetti ndax ñetti at kat kuñ ko sant lëf defal nangam defal nangam defee ko nii defal nangam defee ko nii defal nangam defee ko nii ba ñetti at borom warna tam tàmm war lu mel noonu ndax bu doon machine bu ñuy dawal sax ah, bu es bu ñuy dawal sax ah, mom la dawalkat yi wata yi bu lenen wata la wala leneen luy daw nañ nga dégg ñu rodé na mooy ne léegi allah dem lu sori dem nuñ ko nuñ ko soxla ah, bon xale bi bu ame juróom-ñaar nañ ko digal muy julli loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane loolu dëppoo naag ne yi dañ leen nañ ko dóor su amee fukki at gannaaw buñ ko digalee juróom-ñaar juróom-ñett ñu digal ko juróom-ñeent ñu digal ko ba fukk nañ ko dóor nag boo xamee ne bañ naa julli bu bañ ko jugalee julli wut war nañ koo dóor euh, dóorin way tam borom xam-xam yi wax nañ naka lañ koy dóoree du ngàddi ci bopp bi mu daanu ci suuf wala nga ut ed fëgg fii mu daanu ci suuf wala nga kik ko wala nga maawun ko wala dóor ko ci bët wala nga dóor ci gannaaw gi di ko gaañ loolu itam eggul foofu waaye na nga ko méttital ba mu xam ne lim def nii euh, jaaduwut euh, dóor yoo xam ne du jeexital ci yaramam du ko nàccal du ko tëcc du ko xoss du togn botam du togn nopam du du def dara waye dana saf lu mu yëg ne lu wara war a def loolu mooy wa yudrabu alayha li ashr bu boba li yar la jàngale la ne xale dañ ko wara jàngal dañ ko wara yar itam amul ci ci hadith ba men tey mu ne wa yufarraq baynahum fi lmadaaji bu fekke ne njabor ga ñu góor ak ay jigen lañ nak bu ñu amee juróom ñaari at ñoom ñëpp ngay war a digal ñu julli bu ñu amee fukki at ñoom ñëpp nga war a buñ bañee julli waaye nag da nga ur nak ñaari néeg wala ala laqal nga ur ñaari lal góor ñi tëddee nii ñu jigéen ñi tëddee nii dem am nañ fukki at bu góor ak jigéen ñoo bokk ndey ak bàyyi sax waaye nag buñ buñ buñ bokkati lal nga gis l'islam ni mu solo waaw gis l'islam ni mu solo ni lislaam sellee waaw ni lislaam setee sa njaboot gi yaa leen jur ñoom sax seen xel bu naam jëmul ci loola waaye yow ñi leen njaboote sax seen xel jëmul ci loola waaye nag eh, nekkul ne lu xel demut rek lislaam du koy bàyyi xel déedéet lislaam yàlla moo ñu ko indil moo tax waaw diine yàlla la yàlla mi xam moo tax mu sante ñu ko nii su ko defee njaboot ga miin ca bañ doonee ndaw miin tasaaroo waaw ne jigéen jigéen la góor góor la wax dëgg yàlla loolu itam suñ ko bàyyee xel fekk nañ ko fi ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fii nekkoon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ci ni ñuy dëkkee ci ni ñuy jëflante ci ñi ñuy lekkee jigéen ñi am nañ seen ndabi bopp ndabi jigéen ñi mu nekk nii jigéen ñi am nañ seen wàll seen waa seen po seen paar ñu koy wax wàlli jigéen ñi am nañ wàlli jigéen ñi néegi jigéen ñi am na néegi ñi la boo demee ci góor ñi tam fekk fa néegi góor yi booli góor ñi toogeekaay yi góor yi ak loolu mu doon lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla diine jeexatal na ci boor boobu jeexatal gu am solo solo solo loolu nag mu ngi weeru tam bokk na ci li wéeru ci hadis bii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nañ leen teqale bu ñu amee fukki at ne teqale leen bu ñu leen boolee ti lal ñuy tëdd góor gi ne fa kadalika yanbaghi an yuallamu ala ma farada allahu ala alibadi min qawlin wa amalin qabla bulughihim cheikh bi ne war na xale yooyu nga xamal leen li nga xam ne moom la yàlla farataal ci ñoom yàlla farataal na ay yëf yëf yooyu yàlla farataal ci ñoom yonent cheikh bi mu ne moo xam yëf ya lu ñuy wax la farata juñ war a wax la wala farata buñ war a jëf la bala ñoom mag bañ di leen togg nga am ay jëf ñu di leen war war nga leen a xamal loola ne ay warteef la nangam kat dafa war lu ñu war a wax nangam kat dafa war lu ñu war a wax nangam dafa war lu ñu war a wax nga waxee la itam nangam dafa war lu ñu war a jëf nangam itam war na lu ñu war a jëf nangam itam war na lu ñu war a loolu balaa ñoom mag ñoom ba nga xam ne togg nañ leen jëf ndax su xasee ba ma ba maco euh, daa di daa di daa di baalixiyaa bu baalixiyaayee nag loola beneen affaire la yow sa comme ni ñu koy waxee sa jaan wàcc na sa liggéey yegg na yar nga ko ba mu baalixiyaa léegi nag bu continuer boppam ndax mat na góor comme yow wala mat na jigéen comme yaayam euh, waaye cheikh bi mu ne balaa ñoo egg foofa nag baalixiyaa moom war nga leen a jàngal lépp loo xam ne luñ war a wax la lu war la ci wax war nga leen ko jàngal lu war ci jëf itam war nga leen koo jàngal balaa ñoo balaa ñoo balaa ñoo baligh lu tax balaa ñoo baligh ya cheikh bi ne li yati alayhim al bulugh wa qad tamakkana dhalika min qulubihim ndax bu ñuy dem di baligh ya dina fekk li ñu war a xam ci lu war ci lu ñuy wax xam nañ ko lu war ci lu ñu war a jëf itam xam nañ ko bu boobaa wax dëgg yàlla ki xam li mu war a def kenn du ko wax ne jaaral fi wala fu mu war a jublu kenn du ko wax ne jaaral fi lu mu war a wax kenn du ko wax ne waxal lii lu mu war a def kenn du ko wax ne defal lii dina fekk moom xam na li mu war a def xam na li mu war a wax xam na li mu war a li mu war a li mu war a li mu war a fas mu fas ko daytal yàlla yi xàmme na leen du ko jéggi mandargaay diine yàlla yi xam na leen du ko mooy itam moom lay ut bu boobaa loolu daf koy dimbali wa sakanat ilayhi anfusuhum dina nekk ne seen bakkan itam tàmm nañ ko waaw fekk na seen bakkan yi tàmm ko sax na ci seen bakkan julli dootu doon problème am eewu dem julli du doon jafe-jafe ci moom jàpp du doon jafe ci moom ndax am liqaam julli du doon jafe-jafe ci moom nodd du julli du doon jafe ci moom taxaw emoo xam ni ñuy taxawee ci biir julli du doon jafe ci moom dal ci biir julli dal ni ñu war a dalee em du bari yëngatu du doon eh, jafe-jafe ci moom di gestu gestu yu bari xamut nu ñu jullee munta toog sax toogaayu bank tànkam yi xamut nu ñuy toogee loolu yëpp cheikh bi ne bu fekkee ne jàngal nañ leen bañ doonee ndaw balaa ñoo baalir yaa buñ leen ko jàngalee buñ baalir yaay loolu du doon benn jafe-jafe ci moom dina fekk seen bakkan yi dafay dal buñ ne julli dañuy kontaan buñ ne or dañuy kontaan buñ ne jëf lu baax lu ñuy jëf lu baax dañuy kontaan bu ñuy wax lu baax ñu kontaan jàng alxuraan dañuy kontaan lu nekk dañuy kontaan bu ñuy julli ci biir julli gi danañ ko def ngir ànd ak dal ànd ak ànd ak kontante wa anisat bi ma farada allahu subhanahu wa taala ala alqalbi amalan min di ngi len fekk itam ñu doon ño xamne dañuy wételiko euh dañuy wételiko li yàlla santane suñu borom subhanahu wa taala ne na nekk ci xol yi nako xol yi di jëfé da ngi len fekk ñom dañuy wut jëfëndiko loola seen xol da fay da fay dafay lo da fay wételiko di def lo xamne wala di fas lo xamne loolu la yàlla suñu borom subhanahu wa taala du doñ duñ doñ lu wét loolu la yàlla santane seen xol loolu lay wételiko du xol ba du wét mukk xol ba tudd yàlla daf ciy nekk xol ba bëgg yàlla daf ciy nekk xol ba gëm yàlla daf ciy nekk bu ko defee xol ba doon xol boo xam ne day màgg rek ci lu baax noonu la def seen xol dafay doon xol boo xam ne day wéttalikoo bon di jëf loo xam ne moo elloo ak li yàlla suñu borom subhanahu wa taala santaane ne na doomi aadama yi gëm loolu bu ko defee seen cër comme ja tàmm nañ jëf lu baax itam di nga gis ne seen cër yi nga xam ne moo feeñ moom itam dina tàmm di jëf li nga xam ne mooy jëf yi feeñ loxo bi dana xam li muy jëf tànk yi mun a jëf li muy jëf bët dana jëf mu jëf nopp jëf mu jëf làmmiñ jëf li muy jëf yi feeñ daal li nga xam ne moom lañ ko sant moo war ci moom ci diine ci jëf ci diine di nga gis ne dana fekk mu tàmm ko du donati tumuranke ci moom du ca du ca def dara waaye di nga gis ñoo xam ne wax yàlla euh, duñ ñu am feebar xëj na boo xam ne walla gaaf goo xam ne daf leen teree mun a toog julli waaye nag ñàkk leen a ñàkk leen a jàngal ñàkk leen a train bañ doonee xale jàngal leen bu baax a baax niñ war a toogee ci biir julli ak nuñ war a def ci biir julli tàmmuñ ko ba tax na buñ toogee di julli di nga yëg ne kii tàmmul julli loolu la cheikh bi wax ne euh, njëriñ yi jàngal xale lu feeñ la ci wàll googu bon xale yi nañ leen jàngal euh, du jàngal rek ci wax waaye nañ leen yar Euh, du yar rek waaye nañ saxal ci seen biir xol yi li nga xam ne moom moo war pour ñu fas ko ñu fas ñu fasal leen ko fa li nga xam ne moo war ci seen cër yi feeñ itam pour ñu jëfe ko ñu fexe loolu ñu nekk ci di ko jëfee nañ leen digal ñu julli bu ñu amee fu bu at bu ñu amee fukki at suñ bañee julli nañ leen dóor ngir ne julli wuñ am nañ fukki at dóor yi wax nañ leen ni ko boroom xam-xam yi firee buñ fekkee ne ay góor ak jigéen lañ nañ leen ber góor ñi tëddee nii jigéen ñi tedde ni buñ bokati lal buñ teddo kay euh ndax suñ defé lolu bala ñoo mag di baalixiyaa dina fekk seen yaram tàmm ko seen xol tàmm ko seen ciir cër tàmm ko moo xam yu ñuy fas la wala yu ñuy jëf ak cër yi la euh cheikh bi comme ki def ko lajoon lu mu koy liggéeyal wax na ko ne sa ufassilu laka ma charatu laka dhikran dikrahu baban baban li nga xamne nak mom la wax ne dina la ko waxal duggaguma ci waye dinaa la ko wax nak buntu buntu la la koy defal bu ne dana ko def buntu wax la ci lamay lama la ci wara wax su jeexé ma tëj jëlaat beneen bunt wax la ci lima ci wara wax li tax may koy def li yaqruba min fahmi mutaallimihi insha allah taala ma koy def duma ko sorti rek ben mu dem ba téré bi jeex waye nak dama koy def ay xaj xaj xaj bi ñu tuddé ko bab amal ko tur xamné li lañ wax ci ci ron buntu bi lolu da fay tax ki jàng mu yombalal ko limuy jàng yëg ma ngi ci nangam lañuy wax suma ci joge ma ngi wax ci nangam suma ci joge ma ngi wax ci nangam wa iyyahu nastakhir wa bihi nastain wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim cheikh bi bon tejna jital yaay gi nga xamne mom la doon def pour uyu ko ci lim ko sante léegi nak dana door ñëw inshallah ci benen dajje bi cheikh bi door diko firil li nga xamne ne mom la ko wax ci li war ci li wara fas ak sunna yi nga xamne sunna yu deugar la ak ay ngeen ay nafila ak ay ngeenel ak yuñ sopp ak yi nga xamne ay teggin la yu wara jàngal xale yi nit itam ci diine mu war ko continuer di jàng ba keroog muy uyu boromam lolu ci la cheikh bi dugg ci wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما